3-0 bu soobee yàlla Sénégal mooy gagné 3-0 bu soobee yàlla Sadio Mané day doublé euh, Bamba Dieng mu yéeg njéegali incha allah bu soobee yàlla yal nañu yàlla may ndam jërëjëf yal nañu yàlla may ndam ci barke Sëñ Touba ci barke El Hadj Malick nañu yàlla may ndam jërëjëf. jaaykat yaa ngi tamit day jaaykat yi gis ngeen rang gis ngeen rang bi nu mu toll gis ngeen ñii ñëpp dañuy. supporter pour équipe nationale tey. salaamaaleykum. ay salaam. ça va bien. ah doo 3-0 rek. incha allah. mais dégg ngeen gars yi daa mel ni ñëpp 3-0 lañ def. gars yi jël 3 ticket 3 mille di ko jaay ay 14 la 15 gars loolu baaxul. 2-0 la war a tuwaay ticket jox 2-2 non 3 organisation bi des na. organisation moo des quoi. waaw ah, mais dégg ngeen de gars yi tamit ñoo ngi ñu ngi décrire organisation bi de. waaw. 2 0. 3 0 3 0 3 0. ndam rek ndam rek. 4 0. 2 0. 4 4 bëriwul. bëriwul 2 0. wul 2 0 la pas 4. premier mi-temps 2 0. non au moins on va gagner par euh, 2 buts d'écart. 3-1 victoire assurée. mais daa mel ni vous êtes serein de. waaye nous sommes sereins 2 0 2 0 qualifié par force. 2 0. avec beaucoup de sérénité un match c'est quatre-vingt-dix minutes il faut pas que ñuy pressé mais yàlla baax na quoi. <laughs> gay nag ndam rek ndam rek. ndam rek ndam rek. ndam rek bu soobee yàlla. ndam rek gërëmoo victoire. Sénégal. maam la ñii. Sénégal. ay dóor lay doon tey. ah dégg ngeen ne gars yi ñoom ñëpp nee nañ dóor dóor rek gars amuñu sax xel ñaar victoire rek la ñuy wax victoire victoire. 2-0 rek. 2-0 rek 2-0. gars yi naw ñu may dara égyptiens de 2 rek la wax. waaw jaajëf ndax victoire rek victoire rek incha allah rek ndam rek. ndam rek naar dañu leen ah non bu lekk ba. ndam rek. jaajëf waay victoire. nañ ñëw si ñaari eh, allo. ndam la amul lañ leen di dóor. 3 buy lay gis buy. incha allah dañuy door de grand. bilaahi incha allah rabi. 10-0 ñu ah, mais tey daa mel ni gars yi ñoom ñëpp dañ ko eh, manqué de ñoom dañ ko manqué de ñoom ñëpp 3 <laughs> waa gis ngeen de ambiance bi noonu la demee nii fii nii fii nii ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp tamit ñun leen yéen lañ fi nekkal Sénégal lañ fi nekkal nekkal ñu fi kenn traitement d'information pour Sénégal ñëpp ñëpp gis ci seen bopp loolu moo tax fu Sénégal woote wala askan bi fu mu woote ñu ngi foofu noonu mais gis ngeen gars yi ñu ngi ñëw ba léegi nii gars yi ñu ngi ñëw ba léegi foo toll gis leen mais déggal naa fi déggal wuy naa fi. vous supportez damay supporter Sénégal. non non damay laajte. Sénégal rek. score lan score score. 3 3 buts pour le Sénégal. 3-1 pour Sénégal. Eh, kon doon may gars yi dara. ah. dañu may dara. waay Égypte Égypte day dem suñu gaynde dañu jël coupe dañu jël coupe du monde dañu jël coupe du monde incha allah dañu door Égypte Salah moo dem jooy incha allah suñu gaynde rek. dañuy door 3-0. kii mooy Sénégal Bamba Dieng yow laa gëm quoi. 2-0. mais gis ngeen de suñu mbokk yi ñi ñëpp Sénégal lañ juddoo. 3-1. fii foo si ne taxaw lan la mën a yow. Eh, waaw gis ngeen de gis ngeen ñooñu ay naax la ñu mais ñoom Séné wóor na ma ni Sénégal lañ juddoo Sénégal la ñu màkkee mais déggal kooku kooku tamit mu ngi ñaxtu de mu ngi ñaxtu de. 3000 gars yi ticket 3000 francs gars yi 20000 lañ ñu koy jaayee xanaa ay sénégalais ticket 3000 nga bëgg koy jaayee 20000 ticket 3000 boo ñu fayee 10000 sax duñ la ko jaay da ngaa dimbali ñi ñu tamit ay senegal lañ. billaay xoolal 8h ba tey ñu ngi fi. billaay ticket bi 3000 20000 lañ koy jaayee ticket bu 10000 lañ bëgg bu 3000 sax mënuñu ko am ba tey. xam nga lii du yoon Sénégal dafa dese. mais est-ce que ticket yi jeexul. non ticket yi jeexul nit ñaa ngi koy yor di ko jaay nit ñaa ngi di ko jaay ticket bu 3000 20000 lañ koy jaay. mais mais loolu fépp laa de si àdduna ni ñu jëndee benn ticket jaay ko leneen tamit loolu si àdduna fépp la de. match bu toll nii war a jouer match sam comprendre nga waroon nañu oyofal sénégalais ñëpp mën a dugg comprendre mais ticket bu 3000 ñu koy jaayee 20000 c'est anormal du du yoon. waaw mais euh, dafa excès quoi dafay excédé ah, ñoom noonu lañ ko bëggee tamit xam naa de. Ah, mais tamit xanaa ñun ñun xam naa ñibbi la ñuy def rek. mais comme comme ni ko gars yi waxee ñëpp mënuñu dugg bi stade tamit seetaan match bi. Ah, noonu lay demee sax en tout daal ñu ngi ñaanal Sénégal waaw mu gagné ak jàmm ñu jéem a qualifié coupe du monde waaw Sénégal jëm ci kanam mais affaire yi métti na trop. Ah, ñëpp mënuñoo dugg moom ne ku nekk mën nga ko supporter fu ne. waaw dëgg la ku nekk mënul dugg moom mais tamit yàlla daal baax na daal yàlla baax na mais métti na daal stade bi métti na trop di ñaanal Sénégal nag. ñaata ngay joxe victoire. 2-0 rek baax na waaw. 2 ndawul. non 2 jaajëf